jigéen ñi di leen jaajëfal comme mars la ñu wax mu nekk weeru jigéen ñi mhm. man je dirais tout le temps que ni jigéen moom bis bu nekk rek euh, bisam la kon ñu leen di jaajëfal suñu yaay bi fi nekk muy Mariam Ndiaye ak ñoom Sala waaw di jaajëfal sama yaay bu baax a bi nga xam ne tey macha allah moo tax ma toog fi ba am kàttan wala mën a wax sama tante yi ñoom lii ko gàmm maam ndaak ñëpp ah mais fixeur vraiment ñu leen di ñaanal baax a baax sama papa ak sama waa kër allah mooy àdduna euh, di jaajëfal encore une fois maman Nafi macha allah ci musóor yeeg euh, maquillage yi musu fashion mi nga xam ne moo bàyyeeku ba Pikine ñëw tey euh, gën ma jekki-jekkala pour ma xaw a neex a xool sans oublier Kati Chimère macha allah parce que ki ki la wodd moom mm. donc macha allah dese la dara kon maa ngi lay jaajëfal encore une fois Kati ci tenue rafet yi nga xam ne defal nañu ko di nuyu aussi di jaajëfal képp koo xam ne rek tey bàyyi waajal yu am solo bul wax sax tur bi mais yaa ngi waajal yu am solo ci weeru koor bi très bien waaw comme daal koor tagalu daal très bien tagalu nañu fuddanu nañ sol ay yëre jot macha comme d'habitude ah, di def lépp loo xamante rek mi ngi dëppoo ak ñu wax téléspectateur ñu toog xaar ko xam ne 2STV donc est là pour pour yokk cere doolu ñeex macha allah xaar lañu ci weeru koor gi ci émission yi am solo incha c'est très bientôt bu neexee yàlla kon rendez samedi prochain beneen euh, euh, a laa ku nekk dina jàll ci ay jours yu am solo. Euh, kon nag euh, Eva bu nekkee da nga mën a waajal rek numéro Kati ak numéro maman Nafi c'est important. d'accord ñu koy mën a ñu koy mën a jàllale. yow tamit Bella euh, yàggoo fi waaye yàqoo fi da nga ñëw dooleel ñëpp. yaa ngi bay sa waar parce que xam nga ni def émission yomb na yombul waaye. nga ñëw am sa xalaat bu sell bu rafet di ko partage ak nit ñi ba ñu ci am ay jàngat dafa am solo. waaw Ndeye Ndack man duma def lu dul gërëm la ba pare. <laughs> ak ñii ma fi fekk parce que hmm, bu lëg lekkee alam bu dee gore na ko gërëm ma cooy amaana sax cooy ba ba mu yëg di gësam lëg taxul woon waaye lëg lëg da caa tombé for ko ndaxte bi ma dikkee yaatal ngeen ma boole ngeen ma ba ma bokk boo leen ma xataloon ma xat mm-hmm. bu ñu waxantee rek dëgg boo leen ma xataloon rek ma xat kenn tompatu la daal déedéet boo leen ma xataloon rek ma xat nag lu ma am am fit lu ma bëgg-bëgg boo leen ma xataloon ma xat ñu fekk fi suñu frère bi mu dalal ma dalal bu baax mais yow yow yow yow fii ñëpp àndandoon da ngaa baax te baax alalu yàlla la xaritam rek la koy la koy la koy dénk kon donc yàlla na la fi yàlla gën a yàgg parce que bu dee yaatal rek baax na bu dee yaatal rek baax na euh, donc man dama lay dama dama dama dama lay jaajëf bu ma engage woo ci lii yow xam nga man xam naa yàlla xam na mm-hmm. dama lay jaajëfal ñoo ko bokk ñu ngi noonu ah, may may sargal nag sama yaay ndax suñu yaay ndey ndaak root nañ ci lëndëm dëbb nañ ci taw wal ci naaj tàng kenn amul seen fay man damay wax sama àdduna bépp sama yaay la aw ma ku dul sama yaay sama yaay mooy sama karaw bakkan ku ko laal ma jooy aw ma référence aw ma ku may xool aw ma kenn sama yaay moo ma ñor sama yaay moo ma ñor ndax da di yaay joo xam ne bu mu toogee ba tey jugul tey nag média style moom tey dama kaa war ndax tey style bu mag bi Kati Chimère waaw la grande styliste waaw waaw styliste bu mag la nag ni ko gisee tey tey tey suñu umu si la moom moo génn ci tenue yu rafet yi a ah, maman Nafi maman na fi euh, moom it baax. mu mhm. ñëw fekk ñëpp di ko wax mu baax trop te yiw ay wax mu génn ñu ci ci ci kii yu rafet yi. kat yi def na mu feelu ko jaar ko jaar ci sew sew ñu koy ñu koy wax jaajëf euh, di di gërëm euh, ñaaña da baax air nday ndaag dafa am ko may message nii nee na daf la bëgg a solal waaw maane la tudd styliste la styliste la waaw après naa la naa la woon message am mi ngi mi ngi may message sànq ba léegi ñaaña da baax maa ngi koy gërëm bu baax a baax madame Diop di gërëm ah, tey Aly Cissé Ndiaye dama la tëb sëñ Babacar ak kii laay gërëm tey foofu laay gàttalee dama fay yem sañ Babacar. ak Ablaye Dieng. <laughs> ndeysaan Amadou xale yi dañoo mën a ruubee am na ko ma bind nee ma xanaa yéen da ngeen di mardi gras dañoo dellu aada ak cosaan am. nee nañ dafa élément dañuy mardi gras waaw tey ñoo def mardi gras mag di delloo aada ak cosaan dafa nekk loo xam ne lu am solo la waaw dafa nekk lu am solo la mais mais Bessél vraiment message sax dafa bari ñoom Mamadou Mamadou euh, Tambouré neen dafa kontaan waaye nag am na koo xamante ne nee na euh, dafa bëgg daal nga nga nga tàggoo ko ak li nga xamante ne mooy tuuti rek ci law lawbe waaw nee na nga may ko tuuti rek ci lawbe. waaw xam nga lawbe lawbe mm-hmm. moom ak euh, pël. parce que bu ñu nee lawbe rek dañuy ne pël. lawbe li leen différence mooy ñoom dañuy yatt. Mm-hmm. yatt la ñuy def waaye tamit ku leen xam xam leen si fer. Mm-hmm. te fer ndaak dafa dafa jigéen da ko war di làmboo. da ngay dégg des fois ñu ne la boo taawloo doom bu góor dafa am ay fer yoo war a takk ak yoo xam ne waroo ko takk. Mm. c'est important tey loolu lawbe boo demee ci ñoom am nañu seeni secret yu bëree bëree yoo xam ne tey ñoom war nañ la cee mën a may. c'est comme si waaw ay nitu wërsëg lañu même boo demee ci ñoom euh, xam nga yatt dafa am euh, lawbe yi. Mm-hmm. Euh, buñ la yattalee chaise bi nga toog wala banc bi nga toog <laughs> dafa am ay yattam de. Mm. ah waaw doo ñëw rek defar. déedéet mm-hmm. ndax doo fekk garabu taxaw rek nga.